ñu ne waa ñoom jóge fa ba léegi ña nga ak wax ji ba léegi doy nag sant yàlla ana waa laayeen ñoom kat tey la seen appel bi ana waxtu wi fu ñu ne ñu ne ña nga ca xabru Seydina Isaa Ruuhu Laay ngir lan dafa ubbee oote bi ngoon ñu dem ngor fa yàlla làqoon leer ga ëllëg ñu dem jàmmalaay ca yoor yoor ba Seydina Limaamu Laay woowoon àddina ku ko def téeméeri at ak ñeent fukki ak ñeent santal yàlla ndax ku weddi bàyyi laay la nga yéene woon mu daal bàyyi laay yemoo ci yéene ji nga jaxasakaak ñi nga jàppoon ni ñoo yor nguur ñu def ba tële ku yebu bàyyi fi Seydina Limaamu Laay te xam ni ndegam tubaab yee ko fi bàyyi woon sëriñ si bàyyi ko fi ah ku yebu bàyyi fi Seydina Limaamu Laay loo xam ni sa maam fi la ko bàyyi sa bàyyi fi la ko fekk bàyyi ko fi yow boo bëggee am jàmm bàyyi fi loolu moo tax sang bi nee na ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñu ngi leen di bu baax tey ñaan yàlla yàlla na nu fi yàlla bàyyi ba ñu fiy daje ay at yu baree baree bari li wóor mooy ñett ngi yoo xam ni kuy ñaanal ñaanalal sa bopp di fi fekk waaye ñett yooyu fi lañ koy bàyyi ba àddina tukki ooteb Seydina Limaamu Laay dañoo juddu dañu juddu màgg ci dee ci bàyyi ko fi ñeneen juddu màgg ci màgget ci dee bàyyi ko fi loolu yàlla garantir naka bàyyi lay beneen bi kéemaanam gi mu randaloon géej gi dañuy dund màgg dee bàyyi ko fi bàyyi lay tëdd rek ci booru géej rekk na nga naan antum lam taarifuuni wa ana albaara arafani wa arafa xadri inda rabbi jalla wa waa loo xam ni xaadimu rasul ku nekk respecté ko ci réew mi mu ne may jëwriñu yonente bi moo ne lay tegtale ni kooku ne yàllaa ma yónni yàllaa ko yónni mooy dina wàcce ci moom lu ñuy wax mujisaat mujisaat nag yàlla rek mooy ànd ci ndawam mu def ko waaye bu dul moom kenn mënu koo def bu dul woon yàlla it moom ci boppam du mën mujisaat sadaqa allahu al-azim wallahi kon kuy ñaan ñaanal yàlla naa ko fekke déwén yàlla naa ko fekke ay at yu bari waaye woote bii kenn du ko ñaanal ndax mës ngeen gis ñu daje fi di ñaanal woote bi walla yéen mosuñoo daje def dog ne nañu ñaanal oote bii mu yàgg fi déedéet dañuy fàttali kay ne lii ndawal yàlla moo ko oote woon ba mu fi jógee doomam ji ñu woon mooy Seydina Isa mooy uutu naa Limaamu ñu di ko ubbee ci moom mu ne man dey maay buntab limaamu ko jaarul ci man doo àgg ci Seydina Limaamu yéen gaañe ngeen Seydi Rawala ko ñaari yoon mu xool lan gaañe ngeen na wér Seydi Rawala ngoon feeñ na yoneen la sangala ana jigéen ñi wax leen ko la ilaha illallah hmm. seydi roalaay mi ngeen jàng sangala la ilaha alaay jaayuleen gaañee ngeen diiroo waalaay mi ngi jàngoon weñ na yónneen la mam siiri sangala la ilaha illa la alaay jaayu leen yéen gaañe ngeen siy diiroo waalaay mi ngeen jàngoon feeñ yónneen la mam siiri sangala la ilaha sang bi nee na ba yàgg mag ñi ne ko woote nga foore ya weddi la bu ñu demee saam loolu la yoog yàlla amana mun day gëm nanu la رحمة ويمنة من إمام خابر فان سيل باي ورث بهرا أميخا واسعا مصابا شرابا شرابا لن يغيق الوزان سيدي لا نزلت وفيت ورث علما وعذابا ومرمة وإجا يلين غانيا seydi roalaay mi ngin jàngoon wey naayoon nen la maam Seydina na mu la ilaha illa la la ilaha rabbi laay yaay rasulu laay jërëjëf laay mu ni af wa nabiyoon min qabli kalimatu laa ilaha illa allah yonent bi ni li ma fi wax ak yonent yi ma jiitu woon li ñu fi wax seen wax yépp la ca gën mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah siraat almustaqim laa ilaha illa allah miftaaxul waa ma ni koo xam ni dañu wax ni yonent yi ci boppam bi waxoon ne li gën ci li ma fi wax ci yonent yi lu gën ci li ñu fi wax mooy kalimatu laa ilaha illa yàlla jox ko Seydina Limaamu mu ne maay ke waxoon wax ja démb maa ko waxaat tey waa ki yor li fi gën boo fi gënul ana ku gën ku yor li fi gën boo fi gënul ana ku la gën nanu sant yàlla bu baax te gis nga wax jooju ma leen wax ni ñëw rekk daje nii ndaxam réew maa ngi metti réew maa ngi metti nag waaye woote bii yàllaa koy aaral boppam bu ko kenn xeet ñu mën a toog nii ngir lan màggal wooteb ndawal yàlla bu ko kenn xeet kon nanu santaat yàlla di ñaanal sunu xalifa Seydi Mouhamadul Muxtaar yàlla yàggal ko fi amiin fi ay rakam maa ngi ànd ak sama rak Seydi Maam Libaas ànd ak sama rak imaam Mouhamadul Muxtaar yàlla dénk leen ñuy dundal oote bi yàlla na leen yàlla may ndam du nuyu sunu doom yi Seydi Thiaw mu Bayraan Seydina Issa mu Seydi Abdoulahi yor comité d'organisation bi ak ñi mu ci àndal ñépp ñun nag ñi ngi doon nelaw ak a yeew ba nu ñëwee fekk lépp baax ameel nañu leen cant yàlla na yàlla fayal nu leen boo xoolee Seyna ni mu dawale yërmande nga xam ni am na loo xam ni ndono la azizun aleykum ma anitum harisun aleykum bil muminin raufun rahim yërëm nañu leen ci toogaay yi yërëm nañu leen ci naaju tàng wi naaju tàng wi yal na wecci sunu kër ëllëg ca àllaaxira keroog ba kër jafe amin jar na ko de bu ko kenn jàmbat ndax am na ñoo xam ni ñu nga topp naaj wa ak poussière ba ci lu dul diine kon lu ñu dal ci diine diine jar na ko beneen bi jamono yële réew mi yëngu woon na metti woon na ñu dem ca Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam fa mu tëdd di jàmmalaay ba ñu fa ñaanee jàmm yàlla mayoon nañu jàmm ca yooyu jamono bu réew mi yënguwaatee appel dëkk ñëw sas la ci ñun jàmm ci réew mi waa jàmmalaay ñu ngay ñaan jàmm ci réew mi lii am yàlla dogal appel jiitu ji kon appel bii nanu ko def appelu ñaan ku nar a yàq réew mi nag la Seydina Isaa waxoon mu ne fii manees na fee yàqule waaye kenn mënu koo yàq nañu bàyyi xel ci ne réew mii mag ñi fi jaar samp bi ñu ko sàmp ku ko bëgg yàq yaa yàqu waaye réew mi moom du yàqu bu soobee yàlla nañu bàyyi xel ci ne ndegam gëm nga Serigne Touba ndegam gëm ak maam Alaaji Malick Seydina Limaamu ak ñu baax ñi fi yàlla wàcce bu dee gëm nga ni seen ab liggéey yàlla du ko neenal mukk du ko neenal mukk boo bëggee yàq yow yaay yàqu waaye réew mi moom du yàqu sëy na saani manees na fee yàqoo waaye kenn mënu fee yàq nee na yonent bi nee na fitna ngay nelaw yàlla rëbb na képp ku yee fitna ku ci ne ci nun na bàyyi xel ci ne yee fitna dina waral nga bokk ci ñu yàlla rëbb te ku yàlla rëbb jàpp am na yoo xam ni mooy ki toog ak ki wut lenn la ñuy wut nguur nguur nag am na foofu ba fa yeggee jaratu ko bakkan di ci dee bakkan ci loru nga war ka la yoo ëllëg ca kanamu yàlla yow mi wut ak yow mi toog ku mu ko jaral nanga di nga dajeek yàlla ëllëg maa ngi koy fàttali senegal yépp dëkku jullit la ñu nekk jullit ñi ñoo ëpp ñu dul jullit jullit nag yàlla dafa bëgg pas-pasam buy bëccëg guddi mu dese pas-pasam ku gëmul bés penc nag loolu sa la waaye ko gëm bés penc ëllëg ne yàlla dina la àtte na nga bàyyi xel bu baax ca la nga xam ni yaa ngi koy def mu sabab ay bakkan di ci wadd ay bakkan di ci loru réew mi di ci yàqu nit ñi di sonn nañu bàyyi xel ci loolu Sénégal yi yëpp nag sang beneen laa ko wax ki toog ak ki ut jot na fa mag ña tegoon seen tànk ñu tegaat fa suñuy tànk maam Alaaji Malik fekkante nag sëñ Tuuba fekkante nag seen alimaamu fekkante nag mboolem ñun ñu baax ñi kenn musu leen a dégg ñu jàppal diw jàppal sëñ Tuuba jàppal seen jàppal maam limaamu kenn musu leen a dégg te dara tënku leen woon lu dul diine bu ñuy wax islaam ñu tëgg ko ci baatu salaam suna alal ardi hawnan jaa'iluun xaalu salaama salaaman asalaamaaleykum boo koy wax tey dox ci ba pare yow mi kay wax di dox ci fitna ci salaamaaleykum jooju fan la tegu yàlla da koy nangu kon ka ñaanal mën na ka am bu la nee salaam te fekk doxoo ci jàmm yow day doo am jàmm yow lii daal sang bi nee na mooy dénkaane li mooy dénkaane li di ko dénk sunu bopp di ko dénk Sénégal yëpp wattaqu fitnatan laa tusibanna lazina minkum xaasatan wa alamu anna allaha sadidul iqaab bàyyi laay nee na ñun waa laayeen coow la na na ngeen riir rek waaye bu mu dugg ci seeni xol bàyyi lay xeex kenn rey kenn diine la du jox sellal ko teg na ci siraatal mustaqim ba képp ku ci ne la sëriñ lan daan wax booy dem da ngay nelaw rek ñaan day nelaw rek te dem ngir déggu sedd pay ga ci lut mën a teg bët boo demee armeeli bàyyi laay doo fa fekk kenn ku tegu ci yoonu Seydina Limaam ba dugg biir suuf bu nit ñu doxee juróom ñaari jéego wàññee ko nga sulli boo sullee doo fa fekk kenn la koy maye nag mooy li bàyyi lay digle nga nekk ca te bàyyi laay booy xool am njàngaleem bu ko ñëpp defoon kenn duñu dégg ci dara ku la dab dog sa kurus foral say perte dem bu bañee ne bàyyil kurus gi doo for per yi bàyyi kaak kurus ga te wut si geneen kurus bu ñëpp tënku woon ci njàngalem Seydina Limaamu Laay lii xew ci réew mi wallaay du fi xew ndax lépp àddina la rek te lépp day jeex lu ne jaar na fi dem dañ fiy jóge dem ñeneen ñëw ba keroog àddinay tukki sanga baa ngi soññee loolu Sénégal di soññee ci laayin yi na ngeen ànd ak ak dal ko bi ñu yëngoo yor leen seeni kurus tudd yàlla daayira yi moo gën yeneen ñi sol sa lu weex doo topp poussière bi di noŋi noŋi ngir àddina lii nu am sol suñu lu weex di tudd yàlla ñépp di ko roy bu doon safaan kenn du ko roy ñu ngi leen di fàttali loolu na ngeen ànd ak dal fu ñu ootee am yàq bu leen dem bu ñu ootee xeex bu leen dem xeex jeex na ca démb la jeex bàyyi lay ni jihaadu nafsi laa leen woo mooy am retenu retenu am na loo xam ne bu leen ci kenn yóbbu mooy ndigal li Seydi Maam Libaas imam Mouhamadul Muxtaar wax jàngoog nee na kenn xamu ci waa am na loo xam ne kenn xamu leen nee na gis nga yàkkamti sa àddina ba tax nga yaakaar ni dem fitna xeex xuloo moo la koy may qul maalikal mulk tuuti mulka man tashaa wa tanzi'u mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir sang ñu ngi ñaan yàlla na yàlla def xel yi dellusi si dañu xam ne amuñu lu dul Sénégal mu neexoon nag ba xale yi kenn du jël gaal yi moo nu gënaloon muy naqadi ba fi nga juddoo màgg fi dinga dem ba dee gënal la ñaanuñu woon yàlla loolu ci réew mi mag ñi liggéeyu liggéey woon loolu lu ci na nag góor góorloo koy maye ak di sédd yàlla ba nga xam ni kenn ku ne ci nun nu àtte ëllëg sëriñ Ablaay daana wax ni bu nu yàlla vérifié jàppal ñu de bu yàlla vérifié dinañu jàpp de kon nag loolu moo doon kàddu yi ñu jotal ko ki yàlla teg jaboot gi yépp ci benn kàddu googu ca la ñu fekkoon sunu maam fekk sa sunuy baay sunuy mag ba ñu ñii fi toog te dañ fi jóge ëllëg loolu mooy kàddu yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke at yu baree baree bare te rafetu fekken ñu ngi leen di jéggalu nag jataayu yàgg yi waxoon nañ leen ko ca yoor yoor ba yaram yi ay nit rek lañu mislukum yooxaa ilayya ay nee na ay nit rek lañu wallaahi alasaan wallaahi ay nit rek lañu di ngeen bàyyi xel ci loolu di ñu jéggal ñu ngi leen di jéggalu di leen wax ni salaamu wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. loxo yi. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. amiin. amiin. amiin yaa amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal amiin amiin laa ilaaha illallaah kan muhammadu rasuulullaah sallallaahu oto yi baare cortège bi fi cortège war a jaar nan leen dimbali waay oto yooyu nan yàgg naa te ngeen gàntoo